sous le pluie. Sous le pluie. Sous le pluie. yaa ngi ci jàmm ana Ndakaaru. Ndakaaru mu ngi fi kay may toogal xaar ko. waaye yow noo def. ça va. xanaa séeréer nga. non duma séeréer nag. lebu laa. Ah, kon man yaay sama lebu. waa sama lebu. mbaa kenn du la dugal ci xeesal. xeesal. non non. ah, ah yaaye. sa ñuulaay bi macha allah. te gis nga boo xoolee ba dugal la ci xeesal duma la may dara dama lay alamaan tëj la ci kaso mbëggeel alamaan la un million bisu. un million bisu. ah xeesal daa baax. ëpp na xam nga ñuulaay day sunu alal. te bilaa la ko njëkk a wane wane ci modèle bu baax. moo tax nii daal macha allah waaw yi ma yii nii mën naa la koo sponsoriser. lan xefi. waaw nga ni. Mhm. tey laay commencé douze laa la ciy jox. ah lu hmm, loolu moom dina garaaw de. li ma ci yëg ëpp loolu. kon na ëpp na. amoon naa fi nag ay parfum lu baax. Eh, yow loo indi ma jël. doo jaay lu bon. yii moom lu muy wecc ko. 2000 francs rek pour yow. ñeenti téeméer. waaw. waaye yow li yomb na di. xaaral ñëw xam nga xëbalee doo njëkk war ay dal. Mhm. xaaral xam nga nu muy def. maa la may bi. yaa may bi. ci lii may la weccit bi ah xanaa ne am te du ma ci yem ak de hmm. kees goo ci am hmm. jox ma sa numéro hmm. bu suuf seddee nga indil ma yëpp ma jël ko yii man bëgg naa lii góor day gaaw daal baa may lu ko waaye mel ni góor yu mel ni sa loxo yi am ah. <laughs> ah. ma ci muus si ko waaw dara. lu ma def. xamoo loo def. waaw ah, baax na baax na. baax na baax na wuy ma. Ah, projet mu la doon wax ci téléphone bi. waaw. na. ah alhamdulilah. télé bi tijji rek dawal premier émission wa ci des. waaw léegi nag euh, émission yi dama ci bëgg a teg ay série ay série di ko dawal exclusivement ci tele bi ah, loolu moo tax nag ma woolu la nag ndakaaru loolu koy teg ko ci suuf nag ndakaaru man fi réew mi toll mbirum série théâtre rek sketch man dama ko tegee ne le ndax kat ndakaaru bari na pëccoxoo te kenn xamatul kan mooy kan xam nga lu ma nara dellu sama dëkku maam bële def li ma donn ci sama maam muy communicateur traditionnel ban communicateur traditionnel la tamit Aliou Mbaye senegal bi yëpp théâtre lañ la xamee di. waaw waaye nag ba may théâtre daa am loo xamante ni dama koo tegoon mu doon sama mbagar feggu tey nag damaa toll ci jël ko ndax amatuma lu may prouvé ci théâtre te saturé na Ndakaaru xanaa xamoo ne man doomu géwal laa te sama juróom-ñaari maam géwal lañu yaa ngi dégg Cheikh Samba Diarra Mbaye bii ci Louga. waaw waaw waaw daan yow mii. waaw waaw. moom nag laa bëgg a jël waxtaane ko. wal nit ñi nag ni communicateur traditionnel ni mu war a waxee ak fi mu war a waxee Dakar xanaa xamoo ni teggin a ngi jeex ci dëkk bi te teggin bu jeexee fu nu jëm xale yii di juddu te ànd ak technologie bii bul leen xamalul mbaax xamal leen xàmmee ak ràññee jàngal leen saytu ak moytu ndakaaru kon réew mi moom bu bu mbaa fi mu bëgg mu teer dina ko teer. Eh, eh, eh, Alioune Mbaye technologie bi moom bul ko laal nga xam ci technologie bi ci laa lay jël ci nga liggéey. waaw. waaye nag technologique bi bu àndeek sama wax doomu yëkk ak doomu wëllu la ndakaar tey jii bu njëkk lan la lay jàngal ci mag ñi booy yar gone da ngay fexe mu rus la waaye bul fexe mu ragal la ah, loolu loolu dëgg la xam nga lu tax ñu wax loolu bu la ragalee danaa nuus toog sawet du xam li koy wax boo demee mu toj dëkk bi waaye bu la rusee boo fi nekkee ak boo fi nekkul day am lu muy jomb am lu muy rus ba am na loo xamante ni kenn du ko ci dégg dama ni réew mi dafa toll ñu delloo siwaat ñetti doom yi xam nga yan ñetti doom. yan la yan doom ji tiital baayam doom ji tiitaroo baayam ak doom ji baayam di tiitaroo doom ji tiital baayam mooy doom ji nga xamante ni fu ko baayam gis ànd ak ay nawleem gis ko ci naka su dul noonu tiit doom ji tiitaroo baayam nag mooy ki nga xamante ni yàqul yaxaasul moom daal sama baay def nangam sama baay tabax nangam waaye moom jéemul dara ngir ëllëgam waaye xam xam nga jan doom a baax doom ji nga xamante ni nag. mooy kii ñëpp sawar a jur ba bàyyam di ko tiitaroo fu mu ko gis ni ndakaaru mii kat sama doom la te loolu nekk doon waxtaane dono yaa ngi fi muy ñun nii mais Alioune Mbaye li nga wax mi ngi may yóbbu feneen quoi daf ma séduire non lii moment musuma la woon xamee ci lii mais nag mais nag mais euh, nag théâtre bi moom garaawul mun nañ ko bàyyi mhm. léegi dama lay jël nga def émission léegi yow ban émission nga gën a nekk à l'aise xam nga fi jamono toll. danoo nekk ci loo xamante ni actualité la. te muy cosaanu réew mi muy làmb. <laughs> waaw Alioune Mbaye nag xoolal xoolal wuy ma bàyyi bàyyi bàyyi li ngay wax ñëw nga fii gondi nga ma. yamal ci loolu nag. kon da jàpp ni xaw ma làmb. ndakaaru làmb li ma ci xam ñii di wax ñëpp xamuñu ko. làmb saturé woon rek ma dem toog defi leneen. xanaa xamoo ni Moustapha Gueye bi muy doon Mbaye Gueye di jël Tigre de Fass bi ñu koy booleeg Dame Suger fi la ma fekk man. yow bi mooy yow. ça va bien. ana ma sa Ndiaye. mais sa Ndiaye ñëwagul. Mm-hmm. Mm-hmm. mais xam naa leen mu ñëw toogal xaar ko. booba foo nekk waaw d'accord ok ça marche. xanaa xamoo làmb ci lan daan jaar di jaay tourisme bii boo gisee tourism dee xam nga lan la parce que danoo bàyyi li koy jaay ba pare topp naan tourisme fal ministre boo xamante ni buy wax français sax buy wax olof danaan ngeen baal ma caxabal loonu koy waxe mais loolu day yàq làmb Senghor da daan jël doomi réew mi xool ki nga xamante ni culture ko ñor ak cosaan mu dénk ko tourisme mu ànd ak ñi ne ci réew mi jël soraano yóbbu bale Sorano jël ñi nga xamante ne dañuy reporter làmb ñun ñi dem nañ ci ba tàyyi boobu cawalee xewoon baatu naar nga sol ko kenn xalaatul woon di wax ci làmb di sol deux pièces ak pantalon léegi la xew garaam bu baatu naar ngay sol di wax ci làmb loo wax ñu dégg la mbër mi bu paree respecté la parce que doo ko dunguru doo ko ñaanta doo ko jaxasi léegi la làmb yàqu léegi nag dama pare pour delloo si loolu. non Alioune Mbaye Alioune Mbaye nag. yéemaat la ma. ma jox sérieusement bu mu fi doon indi moom pour wàllum théâtre la woon. waaw amul problème bàyyi naa ko léegi kay émission làmb laa lay jox. xam nga nu ma koy tuddee. takkusaanu làmb. takkusaanu làmb. xam nga fu may tàmbalee. Hmm. ñii ñu naan ñooy communicateur traditionnel. Hmm. lay rangale nii jàngal leen lan mooy làmb ak nu ñuy waxee ci làmb. làmb du teesante xuloo cosaan la. dañ ko war a sàmm ndax mooy suñu héritage. non franchement xoolal émission bi yaay borom.

nga bañee nit ku ñàkk xam boppam. c'est Lina. oui c'est Lina. maa ci jàmm. je bien. baa sonnoo bi ngay ñëw fii nii. non non min naa yoon bi déjà. min nga yoon bi. ah waaw c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai keroog DG mi may wax ni que yow la jëlee kon actrice principale série bi. effectivement. ok baa koy waajal bu baax a baax. bu baax. Hmm. kon instant yi nii ku le action rek nga joué. waaw eh, ça se voit ça se mais euh, lii naa ma laaj la dara man ni may woowee. Ndakaaru. est que xam nga lu tax ni may woowee Ndakaaru. je lu ma bëgg a ci dëkk bi lijjanti ko. Hmm. lu ma bëgg xam ci dëkk bi tamit xam ko. secret yu ci dëkk bii nii. lépp laa xam dëxëñ ko toog te yow xam nga ni man xam naa ni que doo étudiante waaw man loolu lijjanti ko en ah, sama yoon nekku ci lijjantiw ma ko buzz la fi indi géreel sa buzz bul wut bruit ndax boo wutee bruit gis ma Dakar. DG vous êtes là. ça va ça va ça va Lina. ça non dama amoon benn réunion. di ko di gunge kooku fekk ko fi mu toog. ma ne pourquoi pas duma ko woo ñu waxtaan ci série beeg yooyu. expliquer ko yenn affaire yi. ok donc waxtaan ngeen. waaw waxtaan nañ waxtaan nañ bu baax a expliqué naa ko te elle a très bien compris. ah donc c'est bon kon. donc je vous laisse ou bien. non non non on a fini mën na dem mën na dem donc on peut y aller mën na dem ok. dinaa ma faire comme ça. donc à tout à l'heure. ok à tout à l'heure. kii kii danger la ci man ndax DG mi dafa bëgg lu xees. te kii bu baax bi la xaar ma jéem ko jaxaseeg li naan non xaar ma jéem ko jaxaseeg Ndeye Fatou. Vas-y. Ok. Et puis tu vas où D'autant que ça m'embête. Ah, comme tu veux. Pourquoi pas Avec plaisir. C'est bon Je Allez. Oh. oh. T'as pas allé vers Dakar, je pense. Vite fini, Rek. Ok. Moi, je suis là, je suis Ah bon voilà j'ai reçu le mail. ok lire naa scénario bi. et franchement c'est extraordinaire. ah bon trop doué sur ça. Euh, surtout l'histoire euh, des deux filles là franchement ça m'a touché. te tamit bu muy nekk xale. tantam di ko doon maltraité et tout man tamit j'ai vécu la même chose. Ah yow xanaa si histoire bi nga nga inspiré wu. parce que franchement même histoire que moi bëgg naa daal di nekk sa wet comprendre nga ñu waxtaan ci bu baax bind scénario bi ensemble et tout tu vois. ku man maay actrice principale bi daal bëgg naa daal ñu gën ci liggéey daal. pourquoi pense pas que séance d'écriture scénario yi war nañ ci mën a intégrer li la. ban séance la ñuy impliqué Lina. scénario yi bu ñu koy bind. mais DG ma foog ne Lina actrice kese la. mais non écoute je viens de parler avec elle mais elle m'a suggéré des idées pertinentes ah. ah oui je te jure hein parce que dis-toi aussi moom tamit am na ci expérience. mën na ne. waaw dégg naa la waaw war war na mën a nekk war na mën a nekk DG. ça se voit que tu non jamais de la vie. mais da nga ma wax en tant que directeur général DG. mu tontu la en tant que employé. donc c'est bon. donc ak tal ndekete kii. dafa pare pour def sama cere suuf. me voilà. après quelques minutes. dis-moi. Euh, da am maquilleuse. maquilleuse. oui. ah ak styliste je pense. Hmm. Hmm. man moom dama am sama maquilleuse spéciale. waaw mais pourquoi pas. parce que kooku moo xam samay traits kanam donc je préfère euh, mu ñëw di ma maquiller. ah ne t'inquiète pas. Mm. ah oui. d' accord ok y' ah oui sûrement. <laughs> mon bébé. Ah <laughs> je me disais que au lieu ñuy toog fii di bind scénario fii ci biir bureau bi est-ce que dem sama kër. chez toi. chez moi kay. foofu noonu sama chambre am na benn table bi fa nekk. Dans la chambre Dans ma chambre, oui. Voilà, là-bas, c'est calme, aucun de le déranger. Comme ça, on a mes conscience dans mon scénario biocal. Tu trouves pas Ça te dit pas hum? Oh, mais pourquoi pas D'accord, donc demain, on commence Non, pourquoi attendre demain hein? Nous pouvons y aller dès maintenant. <laughs> Ah oui Ah oui On a quoi Allons-y donc. on n'a plus de temps à faire. Je vais venir. Après Amin. Stéphane. yow lu xew. lu xew ko. sa tànk ne nii nga def. mais Ndeye Fatou dama jaaxle rek. jaaxle. oui dama jaaxle. kon nag li la jaaxal rëy ba nga def tànku ne nii. fële ndax dama gis lu ma mës a gis ma mës a gis gis tey. lan moo la yee. xaaral Ndeye Fatou est-ce xam nga xale bii nii dina fi problème bu rëy. ah kon gis nga lool. gis naa loolu gis naa ko. te man bi bu muy ñëw fii. Mm-hmm. casting la fi ñëwee woon. Mm-hmm. DG mu ko casting man sax casting ma ko. Mm-hmm. DG ñaat ne mu jël na ko comme actrice principale. actrice principale. waaw. <laughs> si ba pare moom retourné waat ñaat ne ma moom mooy acteur principal bi. ana DG ak ah, kaay ma wax la nag benn affaire gis nga Ablaye Ndiaye mii. Mm-hmm. boo ko jàppee de. Ah. dafa am faiblesse jigéen bu xees. depuis bi ñu nekkee xale fu mu gis poupée. Mm-hmm. doomu tubaab yooyu ñuy foowee. fu mu ko gis day fone moo ko moom. Oh. dafa yàgg bëgg lu ko topp kon. bu ko jàppee maladie infajable la nag dégg uh-huh. waaw ma mu insisté nag te yow man genre booy yi xam naa leen. Mm-hmm. ndax booy bi jot naa def ay investigation ci moom xam nga man ci lu may dugg rek foofu muy leer. te booy bi du étudiante. nga ne la. moo ko tey def ko. pour dugganteeg saawaay dugganteeg saawaay dem defaral ko ay affaire xam nga. Mhm. def ko lavage cerveau. Hmm? yóbbu ko ci sëriñ beeg yooyu jox ko mu lekk jox ko mu naan ba saay bopp bi dëpp lu mu wax saay na waaw. Mhm. genre booy genre yooyu la. kon ne xale bu jigéen bi yow moo raw réew te xam nga loo ci xamul. Mhm. bu ñuy waxtaan sànq dem naa ba foofu déglu leen. xale bu jigéen bi sa place bi lay visé de. sama place man. ndax nee na ko proposé na saay ne mu nekk assistantam te bu nekkee assistantam yow da ngay tëb da ngay dem. xam nga ni li ma tëj ci chaise bi jëlewu ma fi. gëm naa ko. waaw kay. kon dafay xaar moom. ah en tout cas daal naa la xamal dara xeex bi daal sa xeex la. du nee nga xeex bi sama xeex la. dinaa ko xeex may raw chinois. Hmm. waaw. ah bàyyi ci xel de maa ngi dugg def mu sol samay daal dama jaaxle dama jaaxle. saa yow gisoon équipe bi dañ ko war a tas yow def ko daayra. li nga wax ni moo ko xalaat ba sonn. da ko jox Kara Mbodj muy jiite cat yi ah non. saa yi amul expérience jox ko équipe. te fi gën a yaakaaree rek ñu ñëw découragé loolu. ah yéeme na daal. onze boo xamante ne onze titulaire ñu kenn mënul wax onze titulaire chaque jour joueur bu bees. doy na waar de. non saa yi dafa war a doy nag. doy na waar de. ah saa yi sax maa ngi ñëw Dakar. waaw Dakar am nga. a sansé. ah instant yi gars yi koy wër. ay wax ni waaw mais Ndakaaru. sama copain ngoog Abbas. waaw mais gaynde naka mu gën. siyaar nañ la. yéen a ngi ci jàmm. dem jàmm sant bu baax. naa la bat kay sañsekat doo ko ne sañse nga ko naan sañ seeti. ah kon sañ boo ma gisatee dama wax sañ seeti. waaw sant nii nant nii gaynde. dafa am ay yu may doxi fii rek mais soriwuma fii rek ci kanam. non yow wër. kan moo may wër. waa session de recherche yaa ngi sa bëy Modou Mbaye. man damaa daw daw ba kenn kenn di ma wër. waaw yaa gën a xam ne ma lay wax nag. saa man man fii laa dëkk bougé ma sama kër fii laa ne. saa yi tey ngaa jël say matuwaay. matuwaay mais yow saa mhm. dinaa fi ñëw nga laala ma sama dàll bi dégg nga. waaw ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal yow kay moom ñëw mais yow Abass. dafa amoon benn affaire bu ma xalaatoon quoi. waaw xam nga fa yii dama nekk ci ay projet série léegi nag projet série yow dama la cee gisoon sa profil dama ko cee séen ma bëgg la dénk dénk ba benn rôle. saa yi saa yi dóor na bopp saa yi naa la ba tay maa ngi yow bokk ñu yoon man si effet de conscience laay dox yow da nga da ngay dévier si nii tay di nga maa bàyyi topp sa yoon te bàyyi ma topp sama yoon. ah munoo maa bàyyi ngir yàlla nga topp sa yoon te ba ma topp yoon. mais tey ñu aye kaas tey. waaye équipe bi lañ ko dox léegi Aliou Cissé war a bàyyi équipe yàlla gën a tibb nag. dana war de ah. ndeysaan ndeysaan mais keroog kii la woon pétrole bi tey yaa ngi ci équipe bi xam naa suba ci terrain yi ngay dem terrain yi quoi mooy litige foncier yeeg yooyu noonu. saa ñun ñun ñun ay activités lañ. bi laajee dañ koy wax. mais avance dimbali sa bopp mais waa pétrole bi ñu ngi liggéey ah di fayeeku par weer Aliou Cissé mi ngi liggéey di fayeeku par weer ca terrain yi ngay dugg gars yi ñu ngi fayeeku mais yow nga bëgg fee toog chaque jour ah? man sama teg a koy teg si yoon man sàcc ma ñu. allo. waaw jaa maa maa ngi sama kott. waaw. du ñu ngi jàkkaarloo ñëwal. ah ñëwal boo nekkee nit na nga koy wax dëgg quoi. mooy yoon nag. kii nekk mu liggéey te bàyyi gars yi gars yi ngi fayeeku de. jaa naka ma yaa ngi jàmm. cool. maa ngi cool. nuyonteeg kii sama xarit la. Abbas la tudd. Abbas waaw soxna si yaa si jàmm. gis nga projet série bi. comme la waxoon dinaa la wutal kenn koo àndal. saa yi laa jëloon mais finalement dafa désisté. ok mais pourquoi désister. xaw oh, ma mais mais garaawul man dinaa la wutal keneen. amul problème yow yow di dinaa la wutal keneen yow yow bul wax dara. Ah bu dee saa yi daal désisté kay dama jox rôle bi ma ko. Ah. ah waaw. saa yi maa gën a jantal ëpp ko xaalis. Oh. man maa ngi sama taabul di liggéey heure moom moom heure bu xëyee fajar fekk ma fi soleil bii man laa ko jox cent franc mu ko jëndee. yaa ko jox ah waaw. mu doon ji. ah intellectuel la ñuy wax. dàll yi nga séeréer. ah boo ma jël ko de. nga set rek. Ah. Dakar. waaw gis mhm. mooy kii nangu. moom maa la ko wax Abass xool sax yow jox ko sa numéro. ka. ah. numéro. nangu force day nangu nangu de. cey maay ki lay woo yow. ah. ñu dem. waaw ah. woo ma rek. ma laay dox de. ma woo ma rek. Ah, bu dee sa taa nag dégg nga. Earth with a